jërë ngeen jëf mbokki internet yu Buzz SN ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di rafetlu ànd bi ngeen daan ak suñu chaîne bi te nag ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi ñu ñëw ak yéen ci juróom benn nit ñi ngeen di gis ci écran bi mu di Khaliphone Sall Gabriel Kane Adji Sarr Adji Thiaré Diaw ak kii di Fouta Tampi ak kii di doom ci Fouta Tampi di wuyoo ci turu caba dañuy ñëw rek dooree ko ci doomu Fouta Tampi bi di wuyoo ci turu Thiaba Niane Thiaba eh, Niane ginnaaw bi nga xamante ne nii rek def na ay sorties yu bëree bari di wax ci yaayam bii nii di Fatoumata Ndiaye eh, Fouta Tampi moom mi rek di Thiaba la mu wax ci yaayam nekk na loo xamante ne nii rek lu doy waar la waaye Thiaba yamul sa loolu waaye dafa wax ci kii di Adji Sarr ak ki nga xamante ne nii rek moo di Gabriel Kane ak kii di Kaliphone Sall moom mi nag di caba eh, ginnaaw bi nga xamante ne nii rek waa fu jëloon nañu ko ngir mu expliquer problème bi nga xamante ne nii rek moom la am ak yaayam bi di Fatoumata Ndiaye eh, Fouta Tampi moom mi rek di caba eh, ginnaaw loole kii di Gabriel Kane moom mi nga xamante ne nii rek yu wuyoo ci turu féministe wala sax activiste koo xamante ne nii rek day xeex droit jigéen ñi maanaam bëgguñ ñuy xoqatal la jigéen maanaam moom mi di Gabrielle Kane loolu lay xeex day xeex droit jigéen ñi bépp jigéen boo xamante ne nii rek gis na ko ñu ngi koy xoqatal moom dina ko jéem a jàppale loolu la ñuy wax féministe moom yi rek di Gabrielle Kane ginnaaw bi nga xamante ne nii émission boobee ka doon def émission boobu woo ak kii di Gabrielle Kane comme que Gabrielle Kane féministe la ca naka noonee Gabrielle Kane daal di yebal ay mbokkam ngir ñu jël si kii di caba euh, daal di ko yóbbu ci kër yaayam ginnaaw bi nga xamante ne nii rek caba yóbbu nañ ko ci kër yaayu kii di Gabriel kan mu nekk fa diirub trois jours waaye diirub trois jours yooyee ca Gabriel Kane ci la ñëwee ci kër googee daal di fay fekk kii di caba ginnaaw loole nag Gabriel Kane daal di ñëw daal fay fekk Thiaba dafa tegal ay condition kii di caba la mu bëggoon Thiaba def ko rek moo di kii di Thiaba daal di dem ci site boobee di wuyoo ci turu Seneweb nekk site boo xamante ne nii rek ràññee nañu ko lool bu baax fii nii ci Sénégal ngir mu dem foofee daal di wax ni rek lépp loo xamante ne nii rek waxoon naa ko ci sama yaay nekkul dëgg caba Thiaba daal di koy xamal ni li nga ma wax nii de mënuma koo def ndax man kenn fayu ma man dama bëgg am amour maternel waaye rek li nga wax nii de mënuma koo def wax dëgg fa yàlla ndax lépp loo xamante ne nii rek wax naa ko ci sama yaay bi di Fuuta Tampi dëgg la kon nag mënumaa dem foofee ca Seneweb li nga xamante ne nii rek wax naa ko ci Fatoumata Ndiaye euh, Fuuta Tampi ndax rek Fuuta Tampi dafa nekk koo xamante ne nii day xeexal Sénégal naan day sot kii di Ousmane Sonko wala sax day dem ci concert yi di battre ay Wally Seck wala sax di battre ñeneen ak ñeneen te man mii di doomam mënuma am dara ci moom loole rek moo ma metti waaye du leneen kon nag mënumaa dem foofee ca Seneweb di weddi li nga xamante ne nii rek wax naa ko ci sama yaay booy bii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ca naka noone noonu la caba ba daal di génnee ca kër googee nga xamante ne nii rek foofu la nekkoon Gabriel kan moo ko fa yóbbu woon ak rakam bi nga xamante ne nii rek moo di Aminata ca naka noonee ba mu génnee ca kër ga di dem noone rek la ko kii di Adji Raby Sarr daal di koy woo. ca naka noonee ba ko Adji Raby Sarr woowee nag mu daal di koy xamal ni rek caba eh, dama dégg ni da ngay dem ca naka noonee la ko caba wax ni instant bi maa ngi nii di dem Mbuur ca naka noonee la ko Adji Sarr daal di koy laaj ndax caba am nga Orange Money mu ne ko noono aw ma Orange Money waaye rek am naa paas mun naa ñëw foofee mën nga ma envoyé sa localisation ca naka noonee Adji Raby Sarr ne ko mënuma laa envoyé localisation bi mais da ngay dellu ca kër googee Aminata Aminata nag mooy rak ci Gabriel Gabriel Kane maanaam aji caba ak kii di Aminata di rakk ci Gabriel kan ñoo nekkandoo woon foofee ci kër googee noonu la ko Gabriel Kane fekkee ci kër googee léegi nag aji Rabi Sarr daa di koy xamal ni da ngay dellu ca kër googee léegi boo delloo ci kër Aminata Aminata dina la indi fi ma nekk waaye mënu ma laa envoyé localisation bi ca naka noonee caba xam na ni rek mënatul dellu foofee ci kër googee ca la demee ca Mbour ginnaaw bi nga xamante ne nii rek dem na mbuur après ca naka noonee ci la jugee Mbour daal di dellu Yoff waaye rek xamoon bi mu ñëwaatee Yoff tamit ay xaritam la fa xamoon loolu lu ñu ci mën a jàngatee maanaam nekk na loo xamante ne nii rek lu doy waar la te moom mii sax di caba dem na sax bay wax ni Adji Raby Sarr li ñu koy defloo nii dara du ci dëgg ndax man mii rek suma nooyoon bopp wala sax leneen man mën nañ ma utiliser di business si man wala sax mën naa see am xaalis bu bëree bëri ndax rek nee ma mën nañ laa fay wala sax dara nga wax ni lépp loo xamante ne nii rek wax nga ko ci sa yaay bi du dëgg waaye rek Fatoumata Ndiaye Fouta bi rek wax na ni kii di Thiaba dañu koy fay ngir muy def ay live wala sax ñu koy invité di ko def émission ngir mu wax waaye rek loolee lépp Thiaba daal na koy weddi ndax rek nee na yaayam ji yaayam ji di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi day wax lu ko neex rek waaye li muy wax dara amu si dara nekkul dëgg ca naka noonee rek noonu la caba euh, daal di ne aj moom ak aji rabi saar aji rabi saar li ñu koy defloo euh, dara nekku ci dëgg complot kase la ndax man rek su ma nooyoon bopp mën nañ maa defloo lool kon nag ngeen xam ne ni loolu ñu ci mën a jàngatee maanaam complot usmaan Sonko aji saar bi complot rek la dara nekku ci dëgg maanaam lépp ci ay tappale la ñu ko teg ngir daaneel leader bi di Ousmane Sonko ndax rek li ñuy gën di dem révélation yaa ngi leer mbir yaa ngi leer mais rek justice defagul li nga xamante ne nii moo di liggéeyam ay audio jëndoon na fi kii di Mamour Diallo ak ñeneen ak ñeneen mais rek justice ñi ngi seen teg seen gët mais du ñu wax dara. te doomu Faatumata Njaay Fuuta Tampi bii rek daal daal dina ñëw dëggal li nga xamante ne nii rek moo am maanaam complot Ousmane Sonko aji Sarr dara nekku si dëgg lépp complot la lépp loo xamante ne nii rek def loo nañ ko Adji Rabi Sarr ay tappale la mais aji saar Ousmane Sonko defu ko dara waaye rek moom mi di moom mi di caba euh, tamit yëkkati na ay kàddu teg ko ci ak kii di Kaliphone Sall ca naka noonee rek moom mi di caba euh, la mu xamle nee na tey déggoon na benn journaliste ci YouTube di wax ni rek moom mi di euh, Thiaba daf ne Khaliphone Sall ak Gabriel kan dañu doon xeex mu ne noono c'est que Gabriel Kane rakku Gabriel Kane di wuyoo ci tuuru Aminata moo doon xeex ak kii di Khaliphone Sall waaye kii di euh, Gabriel kan xeexul ak kii nga xamante ne nii rek moo di Khaliphone Sall kon nag ngeen xam ne ni dillu aji Sarr Ousmane Sonko bi ñu ko lal bëri na kii di Gabriel kan ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen kii di Kalifone Sall mi doon jàppale kii nga xamante ne nii rek ñoo di opposition bi ca naka noonu ca la delloo di dem ci côté pouvoir bi di saaga ñi nga xamante ne nii rek ñoo di opposition bi ñoom rek ci complot Adji saar Ousmane Sonko bi la ñu bokk ndax rek moom mii di eh, kii moom mii di Khaliphone Sall avant ñu koy defeere rek xam xamal na ni moom mii di Gabriel Kane da doon xeex kii di Adji Raby Sarr te rek nee yor naa ay preuve yu baree bari kon nag Adji kon nag kii di Gabriel Kane ne li nga xamante ne nii moo di gémmiñam bi ndax rek moom mii di Khaliphone Sall xam na lu baree bari ci mbirum complot Adji Sarr Ousmane bi ndax complot rek la ñu ko mën a tuddee ndax rek lépp ci ay tappale la ñu ko teg lépp ci ay caaxaan rek lañu ko teg complot Adji Sarr Ousmane Sonko bi waaye rek boo leen euh, dégloo ki nga xamante ne nii rek moo di euh, Thiaba ak ki nga xamante ne nii rek moo di euh, Kaliphone Sall ngeen xam na ni lii complot la maanaam teguñ ko fenn ci lu dul ay tappale ngir daaneel kii di Ousmane Sonko bu ñu du jugee ci kii di caba ñu ñëw ci kii di Khalifa Sall coowal viol bi nga xamante ne nii rek daal di nañu koy euh, jiiñ muy xale bu jigéen bi di wuyoo ci turu Adja Thiaré Diaw wax ni rek kii di Khalifa Sall da ko violé Euh, ca naka noonee rek jamono ji kii di Kaliphone Sall tey ca tribunal ba moom mii di Kaliphone Sall dañoo ko déféré euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii rek def na demande liberté provisoire ñaan liberté provisoire mayuñ ko ko waaye rek moom mii di Kaliphone Sall le 6 octobre bii nii la ñu koy jugé waat foofee ca foofee ca tribunal bu Ndakaaru moom mi di Kaliphone Sall waaye rek Kaliphone euh, Sall ginnaaw bi nga xamante ne nii rek daal di nañu koy defeere waat kii di Adja Thiaré Diaw mi nga xamante ne nii rek moom moo wax ni kii di Kaliphone Sall du ko doon violé jamono ji dafa hospitalisé ñoom ñaar ñëpp woowoon nañ leen si gendarmerie bu Wakaam ku ne ñu déglu la waaye jamono ji moom mii di Kaliphone Sall la ñu ko toppee moo di coup et blessure volontaire maanaam dóor yi nga xamante ne nii dóor na ko xale bu jigéen bi di Adja Thiaré Diaw ba gaañ ko la ñu koy toppee moo tax nag ginnaaw bi nga xamante ne nii tey ca procès provisoire kenn mayu ko liberté provisoire ca naka noonee kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi tamit day ñëwaat duggaat na ci coow li ndax moom mi rek di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi moo ko wax te moom mi di Ousmane Sonko un an six mois ngi nii dara fekku ko ci kon nag loolu dañ ciy jàngatee ni moom mii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi moo ko wax ne képp koo xamante ne nii rek yaa ngi xeexal sa réew yow la ñuy jël di xoqatal di la def naka sudul noonu mu mel ni ne rek moom mii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi lii Khalifa Sall def desee ànd ndax rek ku ne xam na ni Khalifa Sall moom Macky Sall lay xeexal ak kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi tamit ku ne xam na ni Macky Sall lay xeexal loolee tax rek mu ne képp koo xamante ne nii rek yaa ngi xeexal sa dinañ la jël sot la di la xoqatal waral. waaye rek ginnaaw bi nga xamante ne nii Adja Thiaré Diaw ñu ne dafa hospitalisé moom mi di Fatoumata Ndiaye Fouta bi la moo xamal ne rek moo di kii ba ko Kaliphone Sall daal di dóoree ñoom ñaan ñëpp dem nañ gendarmerie Wakam ba ni gisi nii ci lay soog a wax ni moom dafa hospitalisé mu nekk loo xamante ne nii du dëgg du yoon waaye rek moom mi di Kaliphone Sall la ñu ko toppee mooy coups et blessures volontaires waxuñu viol bi waaye dóor yi nga xamante ne nii rek dóor na ko xale bu jigéen bi loolu du yoon moo tax rek loolu lañu koy toppee te fii Sénégal dañuy bañ kuy dóor jigéen loolu rek la toppee kii di Kaliphone Sall waaye rek Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi moom mi ngi bàyyi doomam ji fële ñëw di xeexal pouvoir bi wala sax nekk fii di yàq musiba ak mbelengaan ñi nga xamante ne nii ñoo di opposition bi di leen sosal di leen wax loo xamante ne nii du dëgg te yow yaa ngi am sa doom sa doom nekk fee sonn bay bëgg a dee te yow mënoo ko jàppale kon rek loolu nekk na loo xamante ne nii rek lu doyo doy waar la waaye rek jamono ji seen biir tàng na trop muy diggante Khaliphone Sall Gabriel Kane Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ndax rek kii di Kali ndax kii di Gabriel Kane àndut ak kii di Khaliphone Sall teg si tamit kii di Gabrielle kan day jàppale kii di Adja Thiaré comme ni ma leen ko waxee rek Gabrielle Kane ku ne xam na ni féministe la moo tax rek kii nga xamante ne nii moo di Adja Thiaré Diaw moom lay jàppale ca naka noonee ñoom ñaar ñëpp ba ñu leen invité foofee ca plateau bu wala fajiri kii di Gabrielle Kane ñàkk na musiba ak melengaan ki nga xamante ne nii moo di Kalifon Sall loolee rek moo metti kii di Kalifon Sall ba muy vilipande vilipande ki nga xamante ne nii moo di Gabrielle Kane teg si tamit kii di Adji Rabi Sarr muy wax ni sax kii di Khalifa Sall dem na bay wax Adji rabi saar li ñu koy defloo nii moom ak Gabriel Kane xeex nañu kon loolu day signifier ni maanaam seen complot complot bii nii ñu defal ñu defloo aji saar ay caaxaan kase la ay caaxaan képp la ndax rek dugal nañ ci ku ne te ku ne rek yaa ngi ciy jéem a business ci euh, dilu aji saar bi nga xamante ne nii rek bëgg nañ daaneel kii di Ousmane Sonko waaye rek mënuluñ dara ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko. waaye rek ki nga xamante ne nii moo di ànd Sonko kenn mënalu ko dara ndax rek def nañ lu ne ngir daaneel ko waaye rek lépp loo xamante ne nii rek teg nañu ko pour daaneel kii di Ousmane Sonko peuple sénégalais jeune sénégalais yi dañuy bëgg gën a bëgg kii di Ousmane Sonko bañ nañ ko sax ba Ousmane Sonko mu sell mi dañu ko euh, tuddee. moo tax rek lépp loo xamante ne ni lal nañu ko pour daaneel kii di Ousmane Sonko jeunesse bi duñu ko seetaan te sax seen tappale yooyu noonu jeunesse bi duñu ko gëm ndax rek xam nañ ni lépp ci ay tappale la ko teg ngir nguuru Macky képp koo xamante ne nii rek nekk na fi dina ko jéem a daaneel waaye rek kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi moom moom nekk na koo xamante ne nii ku doy waar la ndax rek yow yaa ngi am sa doom sa doom nekk fële sonn bay bëgg a dee faale woo sa doom waaye rek da ngay nekk fii di xeexal ay jàmbur ay Khaliphone Sall nangam ak nangam di yàq musiba ak mbelengaan ñi nga xamante ne nii rek ay père de famille leen di leen wax loo xamante ne nii rek lu doy waar la kon nag Fatoumata Ndiaye Fouta bi war na dem xoolaat boppam ndax rek war na dem jéem a jàppale doomam jee ndax rek doomam ji sonn na trop te soxla na ndimbal bu baax a baax a baax